collectif xaw ma des jeunes Tidjane xaw ma yéen ñooñu porte plainte Omar Sall waaye yéen fi ngeen bokk Tidjanisme bi ngeen bokk Moustapha Sy dégg ngeen ko mu toog guddib gàmm ñaari yonente yu sell mu jiñ leen njaaloo bàyyi ak doom ji muy Souleymane ak Daoud ah comme yéen Omar Sall lu mu wax nii daa naafiq yu bon yooyu Omar Sall lu mu wax moo gën a garaaw lu Moustapha Sy wax ci yéen. doomu Moustapha Sy taxaw na publiquement video yi di daw di circuler fu nekk mu ne day poñe yàlla ngeen teg ci seen bët ngeen gis ko ah comme la Oumar Sall wax moo gën a garaaw ci yéen kane day poñe yàlla wala leen metti mooy kane lii bokkul ci diine li yonent bi defu ko ngeen ne noonu loolu moo leen metti quoi loolu moo leen déranger ngeen ne da di communiquer may wax ñu naan ay xaw ma dañ koy convaincre dañ koy kii mais Sénégal la neex rek Sénégal la neex seen yëfu dof yooyu ñoo leen fii dëkk tubaab yi ne Alpha moo ne xaw ma suñu wasifa bi wala suñu nangam bi kii nga xool yow la ñuy tëj ci kaso bi yow mi ko wax. amul loi du dëkk ku fa mën a génn génn fa nekk bitim réew leeral li ngay leeral muy leer nañ te duñ ci mën dara dëkk la boo xam ne amul benn loi sëriñ seen politiciens yi ñoo ko séddoo suuf sa. séddoo alal ba séddoo lépp séddoo nit ña du réew ku damay roofanteeg yàlla ak damay galgal yàlla ak ku ne allah allah ginnaaw àndandoo di ko tudd yàlla ginnaaw ginnaaw julli saxul nattab leen ñaar yi ngeen xool ban moo gën a garaaw yéen naafiq yi ngeen doon xañ bu bon bi nee na day galgal yàlla mataar saa foo nekkoon ana sa plainte yaa sa mouvement tijaan bi ana seen plainte kii nee na moom day galgal yàlla nee na day judo yàlla nee na day yenu yàlla nee na day mbot yàlla ana seen plainte hypocrite yi ngeen doon lu tax porte lu tax porte wala plainte paa bi yóbbuwoo leen ci paa bi justice lu tax bi kenn du convoqué wu ko naafiq yi ngeen doon lii dégg ngeen ko yëg ngeen ko gis ngeen ko te xam ngeen ko te xam ngeen paa bi dëkk te xam ngeen paa bi fan la nekkoon bu fekkee mu ngi dund bu fekkee alcool <coughs> foo ne. ma ne sëñ Cheikh moo waxoon ni seen sëy siri bi ngeen di jàng te ñu naan xaram na ci jigéen ñi buñ ci demoon jigéen ñi dem leen ngeen poñe ci seen mam Abdou Aziz waaw waaw. mu plaidé ko ah waxin la te moo di même bu araamoon nan la fi yàlla lay rombe Maodo romb Babacar Sy romb sunu waajur yu baax yi sunu maam yu baax yi ñi daf ñuy alak bu ñuy alak yàqu jur yu baax yi sunu maam yu baax yi ñi daf ñuy alak bu ñuy alak yàqu bu araamoon nan la fi yàlla lay rombe Maodo romb Babacar Si romb sunu way jur yu baax yeeg sunu maam yu yi ñi daf ñuy alak bu ñuy alak di yàqu moom nan la fi yàllay rombe Maodo romb Babacar Si romb sunu way jur yu sunu maam yu baax yi ñi daf ñuy alak bu ñuy alak di yàqu yàllay rombe Maodo romb Babacar Sy romb sunu way jur yu baax yeeg sunu maam yu baax yi yàqu. kii Moustapha Sy na yàlla nan la fi rombee Maodo romb fi Babacar Sy def ñuy alak ne yàlla bu ñuy alak di yàqu. da ngeen Moustapha mu doppooral mi réew ko dof. nee na yàlla bu ñuy alak di yàqu yàlla lay waxal de nee yàlla mooy yàqu nee yàlla bu ñu alagee day yàqu yàlla daa faale Maodo yàlla su bëggee alak dëgg daa faale Maodo yàlla alak peuple bu gën a garaaw peuple boo xam ne ab yonente moo nekk seen biir muy Moussa banu Israël mu alak leen ñoom ñëpp yàlla alak na peuple boo xam ne yonente bu sell bu tudd Luut moo nekk seen biir dëkk dëkk bi la albati yàlla alak na. xeetu yonente bu sell muy Huud muy Madiyana Huud moo nekkoon ci ñoom yàlla alag na xeet yonente boo xamante ni Madiyana Shuaybu moo fa nekkoon Shuaybu yàlla alag waa moo fa nekkoon Samud Huud yàlla alag ñooñu ñëpp te ay yonente ñu ngi nga ne yow yàlla nu muy rombee Maodo romb Babacar Si dañuy alag bu ñu alag di yàqu da ngeen Moustapha Sy moo wax lii de mu serci diin yàlla la wax day yàqu mu ne yàlla bu ñuy alal di yàqu ah hypocrite yi naafiq yi sulaar yi porte wala plainte mosavancé ne yàlla dafa yàqu ana seen plainte ci kàccoor bu bon bi la moo Moustapha Sy yóbbuwale ko ci yoon delloo ko parquet retour au parquet woowaat ko la a defoole leen loolu kii yàlla direct la attaqué da yàlla day yàqu da yàlla bu ñuy alal di yàqu waqu ni di bàqu nag di joxañ baaraam bi nag réew ba dof ana ngeen naafiq yi génne leen plainte contre Moustapha Sy procureur wool Moustapha Sy wala di xaar waxi dégg ngeen de. si mës naa ko wax tey laa yàlla bu la fayee ma xeex ak moom ndax yàlla mbaa xam lu muy ngande ngande doyu ma ci yow li nga ci ñun si yow yàlla bu la fay man maa lay fay bu ma ko narul yàlla naa yàqu àdduna àllaaxira àlla xamoo leen sama produit. si mës naa ko wax tey yàlla bu la ma xeex moom. subhanallah. ndax yàlla mbaa xam lu muy ngand ngand doyu ma ci yow li nga liggéey ci ñun si yow yàlla du la fay man maa lay fay. bu ma ko narul yàlla naa yàqu àdduna àllaaxira. amatu farata. yàlla xamoo leen sama góor gi. si mës naa ko wax tey laa yàlla bu la fayee ma xeex moom ndax yàlla mbaa xam lu muy ngand ngand doyu ma ci yow li nga liggéey ci ñun yàlla du la fay man maa lay fay bu ma ko narul yàlla naa yàqu àdduna àllaaxira voilà kii mooy kuti bi nga xam ni xaj boobu jàll sànk moo ko jur fii bu doon dëggalee ay kuti ay xaj boo waxee xaj yi ak kuti da nga leen di tooñ. xaj ak kuti yi ñoo leen gën. wallaahi ñoo leen gën. xaj yi ak yi ñoo leen gën ñii tey waruñu leen woon sax tey porte plainte pour tëj leen déedéet dañ leen waroon a fekk tey ñu woo leen ñu weddiloo leen lii ñu wax suñ ko weddiwul tey. ñu faat leen ñi nga xam ne si dañoo taal góor jigéen boobu noonu dafa dee. waxuma leen taal leen ñii dañ leen war a daggate. comme def leen comme dibi leen dañ leen war a dibi dibi leen ba pare taal leen mhm. parce que ñii jëruñu sax ñuy dund ñii ñoo ñii ñoo jàkkaaroog yéen tey di leen wan ne ñoom ñooy seeni sëriñ ñoom ngeen di woowee tey ay kilifa diine ñoom ngeen di bayal seeni tool ñoom ngeen di yóbbul àddiya ñoom ñoo tax tey ngeen jàkkaaroog waa ahlu na di xeex ak ñoom ñu leeral dëggu yàlla gi di leen laaj ay preuve ngeen naa feq ànd ak ñii nga xam ne si ni tey ñoo jiite réew mi yéen sofiyanke yi dañ leen laaj ay preuve bokkaale yi ngeen di bokkaale yàlla xam ngeen ko yéen da ngeen di yàlla seen sëriñ si moom bokkaal yàlla rek lañ fi nekkee mais ñun omor Sall li nga xam ne si moom lañ leen laaj preuve ci wasifa dañ leen koy laaj ba ba ñu sàngoo suuf incha allahu rabbi il faut ngeen indi ci preuve bu bu jóge ci alxuraan ak ci sunna te Cheikhu Tidiane bi sos seen tarixa bi tey lu mu fenal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bari omor Sall tey fi mu tudd foofu noonu tey suukar la de lem la mais ñun fu ñuy ñëw moo gën a grave. Cheikh Tidiane dinaa ñëw ci Cheikh. dinaa ñëw ci Cheikh sooba yàlla. yéefarloo ko bokkam suuf yi yéefarloo bu gumaaroo dinaa ci ñëw. léegi man li may wax ci doomu Moustapha Sy da ngeen lu wax day xeex ak yàlla. collectif des jeunes tidiane. naafiq ki day xeex yàlla doole ko plainte. waa ki ne lii du diine ngeen di plainte ki ne lii yonente bi defu ko te muy dëgg yonente bi defu ko ngeen dem di ko plainte. plainte leen ko kii ci yéen la bokk bàyyi bokk ci yéen muy sëtu seenub sëriñ yéen bi ngeen di dellu yéen tijaan yi ci senegal kii sëtu Alaaji Malick direct la direct mook Alaaji Malick ñaari doom a dox seen diggante mook Alaaji Malick maxtuub la doom Alaaji Malick maxtuub euh, bàyyu maxtuub la maxtuub boo jur Moustapha moo ko jur nee day xeex yàlla ana seen plainte lu tax woowu leen ko lu tax yóbbuwoo ko dig lu tax woolu ko lu tax convoqué wuñ ko ay naafiq ngeen yàlla ak yonente bi ñoru leen yàlla buñ koy saaga seen yoon newu ci gëmoo leen yàlla ay nit ngeen gëm ay symbole ngeen gëm gëmoo leen ay tarixa ngeen gëm mais ku ne day xeex ak yàlla ngeen koy dégg mu bokk ci yéen nekk seen sëtub sëriñ yëngalu leen nekk Matar Sarr ana sa plainte naa fiq bi nga doon lii doon dégg yëpp de ak waa Jamra ak waa Jamra ana seen plainte ah. kooku moo gën a hypocrite ñëpp dégg ngeen ko de ana seen plainte yéen ñëpp da a lem toog yéen nee na lem toog nanguwoo leen sax yëngu mais Umar Umar Sambou da ngeen koy topp di ko suivre nag comme ni ngeen di suivre ab xaj da ngeen koy topp ndànk di xool rek ban faay lay a def rek ba ngeen génn te lii fàng daaj la. Euh, Tidjane yi lan moo tax ñu porter plainte Ousmane kii kay nu ñu koy waxatee Umar Sall c'est juste parce que dafa wax ne fa bokkul ci diine maanaam dajaloo bi tiijaan yi di dajaloo saa buñ jullee ba pare. dajaloo bu ñuy dajaloo di yuuxu naan allah allah allah Omar Sall dafa wax ni loolu noonu bokk si diine bi Omar Sall waxee lool ba pare ñu dem def seen ay gëstu xool téere na yëpp gis ne loolu amu fa dem xool alxuraan ba sonn gis ne kat amul fenn fu ñu yàlla diglee gannaaw julli ñu dajaloo di yuuxu au lieu ñu nangu dëgg bi leen Omar Sall wax mais rëy dañu rëy goo xamante ne nanguñ dëgg bi ñu ne nag suñu gàcce gi pour ñu saafara ko nañ ko dem porter plainte jaay ko doole léegi nag taxaw seetlu bi mooy Sénégal dafa am affaire bu fi am mooy que ni boo bokkee ci tarixa boo bokkee ci këru diine am nga droit saaga yàlla am nga duraa wax lu la neex am nga droit def lu la neex te daara du la ci fekk Sénégal boo bokkee ci tarixa n'importe quel nag am nga droit wax lu la neex ci diine ci te dara du euh, la fekk tey ji collectif des Tidjane bi nga xamante ne ñoom ñoo porté plainte Oumar Sall ñoom seen bëgg bi ñuy wax ci yonent bi bu dee dëgg la bu dee li ñuy wax ne dañoo bëgg yàlla bëgg diine islam bu dee loolu dëgg la ci ñoom bi fi mustafaa si toogee daaw rek organiser gàmmu woo ci jullit ñi ba julli ñi wuyu si ko mu taxaw directement première partie gàmmu bi lu mu njëkk a def dafa saaga yonent yàlla Souleymane saaga yonent yàlla Daouda ci gàmmu bi direct ñëpp di dégg. collectif Tidiane lan moo tax porté woo leen plainte Moustapha Sy jour boobu parce que Moustapha Sy Tidiane la parce que Moustapha almaktum mooy baayam parce que Moustapha Sy sëñ Babacar Sy mooy maamam parce que Moustapha Sy surtout Alaaji Malick la ci tarixa Tijaan la bokk dafa am mbooloo dafa am ginnaaw moo tax doo leen ko porter plainte doomam bi mu jur ci gañoom capitaine taxaw na fii xool Moustapha si ba mu nekk ne ko pàpp yow bu la yàlla na naree fay ma xeex ak moom Makhtar Sarr vidéo boobu dégg nga ko Mame Makhtar Gueye Jamra vidéo boobu dégg ngeen ko collectif Tijaan dégg ngeen wax yooyu capitaine si wax porté woo leen ko plainte benn yoon pour lan parce que dafa am doole Moustapha Sy mooy baayam moo tax lu ko neex mu wax ko ci diine bi Baye Ousseynou génn na fii ne dafay poñe yàlla teg nañ fi vidéo bi sànq ne dafay damm yàlla wax wax yàlla wax yoo xamante ne ni rus nañ ci sax jaaraat ngeen koy dégg di gis vidéo boobu noonu porté woo ko plainte ab taalibe murit génn na taxaw ne sëñ Tuubaa moo bind yàlla ngeen dégg ko nii ci seen nopp gis ko nii kooku yéen a dund ak moom ba léegi nii Sénégal yéen a koy gis yéen a ngi yeewoo ndoor ak moom di ko gis nii te ba léegi nii porté wala ko plainte dara jotu ko mi ngi ci jàmm ak salaam. beneen murit génn na fi teg alxuraan dëgg ci ay tànkam ne man fi ma sëñ Tuubaa làkk kenn mënu faa yegg maa ngi nii sama tànk laa jël teg ko ci alxuraan dara duma si fekk anamu. ay jullit ngeen yéen ngi nekk ak moom biir Sénégal porté woo ko plainte benn yoon kon senegal réew la moo xamante ne kumba am ndey moo fa am ak kumba amul ndey léegi nag Omar Sall ku yaakaar ni porté ko plainte tëj ko kaso loolu mooy freiné daawo bi wala ku yaakaar ni tëj Omar Sall kaso mooy tax bu génnee dafay noppi dafay bàyyi di leeral dugg yàlla ji yaa ngi sa bopp Omar Sall li ngeen def ne da ngeen ko gën a mën a may temps pour mu gën a wéet ak gën a mën a jaamu yàlla jullit bi lépp lu ko dal yiw la Omar Sall bu génnee kaso bi isnillah waalo dafa nar a gën a aay problème bi mooy fi mu nekk nii yéen yéen problème bi ngeen am mooy dëgg bi nekk di leer maanaam dëgg bi ñëw ne fang ñëpp di si teg seen bët ñëpp di gis ne alxuraan ak sunna mooy dëgg tarixa yi ay caaxaan ay yoonu seytaan la yoo xamante ne nii ku ci topp wàccoo ko safara dong la lay jëmee amul benn direction bu la tarixa di yóbbu bu dul safara parce que njub ci topp yonent bi la nekk njub nekkut feneen Umar Sall bu ngeen ibbi woon xolam ba xam lu leen yéene non doo leen ko porter plainte Umar Sall dafa ñëw fekk leen ngeen di def lu wuuteeg lu yonent bi daan def mhm. mu ne leen lii yonent bi musu ko def yonent bi daaw ko def parce que da leen yéene njub moom Omar Sall moo tax mu wax loolu parce que doomu julit bi yow doomu aadama bi doo wuteeg yonent bi mukk ba pare di ci am récompense yàlla jamais de la vie yàlla yonent bi la yónni kon yow façon bi ngay jaamoo yàlla yonent bi nga ko war a royee beneen jaamu yàlla boo jël di ko jaamoo yàlla te royee woo ko yonent bi zéro la perte temps la Omar Sall xam ngeen lan la leen di bañal ngeen egsi ba yowmal qiyaam gis ne ndekete Cheikh Tidiane lu mu leen gëmloo woon yëpp ay illusion la woon ay fiction la woon dara du woon ci dëgg ngeen commencé nag di rëccu ngeen commencé nag di rëccu di yuuxu Omar Sall lii la leen di bañal moo tax mu ne leen kat ah yéen a ngi jaamoo yàlla façon boo xamante ne nii dafa wuuteeg nu ko yonent bi daan defee. bu la Omar lu waxee loolu yow jullit lan moo la war. bu dee bëgg nga dëgg bu dee bëgg nga njub demal nga vérifier lu Omar Sall wax nga weddi ko ci xam-xam nga dajj ko ci xam-xam mais bul dem di ko porter plainte loolu amul sens parce que ay jullit bu ñu réeroowee alxuraan moo leen war a àtte ay jullit bu ñu réeroowee sunna yonent bi moo leen war a àtte ay jullit ñu réeroo ba pare di dem ci ay loi laïque mu leen di atte loolu Sénégal kese la am ay jullit yoo xam ne nee ay jullit la ñu am wute ci diine ba pare dem ci ay loi yu yéeféer ay loi yu satanique pour loi yooyu noonu àtte leen kon loolu dafay firndee li ma leen yàgg wax ni Sénégal diine amu fa tarixa moo fa am ay tarixa yu fa maam yu sos bàyyi ko fa tey ji mu féewale ñu ñun julli ñu mu diviser ñu booloo bu ñu waroon booloo tey jii nekk benn tarixa yi yàq na ko mais incha allah Oumar Sall li ngeen def nii da ngeen ko gën a dooleel sunna mi ngi gën a leer Sénégal nit ñi dinañ gën a yeew dinañ gën a topp sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tarixa yi dafay jeex bi iznillah parce que ay caaxaar la te ñëpp ñu ngi xam ne tarixa yi ay caaxaan la dafa yomb trop yàlla sàkk la nga nekk ci àdduna di def lu dem topp keneen ku wute ki yàlla yónni ba noppi di ci yaakaar fayug yàlla yowmal xiyaam noo loolu ay naxaate la yeewu leen ngeen topp alxuraan ak sunna te xam ne loolu mooy dëgg Omar Sall incha allah dina génn daawo bi dina continuer dëggu yàlla ji dina gën a leer seen caaxaan yi dina nax saay muy tey di ëllëg bi isnillah diine yàlla ji ñu ni ko leeral waaye lu tax ñun duñu leeral ñoom fulla ji ñu am ñoom di tasaare ay caaxaan waa ñun ndax du ñu am ful junne yoon fulla bu day noonu pour tasaare waxu yàlla subhanahu wa taala ni ñu amee fulla jël seen ay doom ñu noot loo leen doomu jaamur yi ba xam xale bu tuuli ab kàccoor boo xamee ni bàyyam fenkat la woon maamam ci boppam doon fenkat di fen ci yàlla naan man maa doon téel yonti yàlla isa mbuusam bag yu kenn xamul bàyyam ñëw naan damay toog ak yàlla yàlla léegi laa toog ak moom ak mu wan mu may wan ay affaire benn xale bu tuuti ab kàccoor ñëw naan yoon saa sam du modèle kan moo ko porté plainte ki fi toog tuumaal ñaari yonent njaaloo kan moo ko porté plainte ki fi ni yàlla xaaj na nguuram jox ma muy ay fen kan moo ko porté plainte yow nga laal nga ni yow dañu laal sa yéen ngeen di laal bis bu nekk pas-pasu un milliard cinq cent de musulmans à travers le monde bon yéen cour de la haie lañ leen waroon yóbbu waaye parce que xam nañ ni ñun suñuy porter plainte du ñu porte plainte ku dul yàlla yàlla la ñuy porter plainte ndax ñun kenn doy ñu ci diine ji ku dul yàlla suñu porter plainte yàlla def naa ñu dalil yi mi ngi nii lii mooy texte yi